dañ fi ñëw rek comme dëkk si dëkk bi nekk doomu dëkk bi euh, ñëw fi tamit ci ndigalu président la république ak premier ministre bi ñu jo wootee pour dëkk bi sa setal muy cinquième édition bi te ñun nag ñu tàmmu école Gëdël Mbodj bi nga xamante ne ci lañ ko fi defee nekk école boo xam ne moom wax naa léegi ne cosaan la kilifa yu bëri jaar nañ fi génn fi donc ñu taamu ko ñu nit joxe suñu participation en tant que doomu dëkk bi pour ñu mën a préparer entrée scolaire bi ci ci ci ci ci jàmm parce que ñëpp xam nañ ne nawet bi bëri na jafe-jafe mais ñun suñu wàll rek liñ ci mën dañuy ñëw pour participer ci école waaw comme li ma ko waxee rek xam nga matériel bi waa cadre de vie dañoo am dañ war a delloo njëkkal parce que dëkk bi ñëpp xam nañu suba ak ngoon ñu ngi ciy sonn ñu ngi ñu ngi bale ci région bi ak département bi joxe seen doole. kon bu nekkee ñun lañ ko defal ñun ñu xam ne doomi dëkk bi lañ c'est normal que ñu joxe suñuy participation jàppale leen encouragé leen ba nga xamante ne set bi mu bëgg ci dëkk bi yàlla defal ko donc moo tax man appui bi du ñam fii dañ continuer di leen appuyer le directeur régional mi ngi nii Cheikh Kane vraiment taxawaayam ci dëkk bi noonu kilifa déplacé wu kon nga xam ne affaire bi ñor na ko ànd ak ay agent kon ça veut dire que kon kii ñii ku leen gën a encouragé motiver leen dëkk bi surtout centre ville bi ak feneen dinañ am benn xar kanam donc loolu moo tax mu nekk sama ñëw tey ci. waaw xam nga école bi moom li ma woon wax rek parfois nawet bi dañ koy dañ koy dañ koy waajal nawet moom du nekk ne tey rek lañ koy mën a euh, waajal ci biir nawet parce que ndox mi moom ko koo noo koo defar wala nga arrêté ndox mi ci biir nawet il faut nga jël ay matukaay maanaam pré hivernal waaye man xam naa ne école yu Kaolack yi bettu ma parce que autorité locale bi. collectivités locales yi ñu war a jël ci matukaay ci école bi jëluñu ko donc man li bettu ma te gëm naa ne xëy na xale yi duñ ci mën a jàng parce que dañ ko jël dañ ko jël jëlul ay matukaay ci ci mbirum école bi donc moo tax certaines écoles comme école Tabangoy bi ma juddoo man yaroo fa man fexe naa ba ndox mi génn parce que loolu mooy sama sama wareef ci ndimbalu waa génie militaire tamit jàppal nañu ci ba ba ndox mi génn donc looloo tax man ma xam ne lu ñu war a mën a jël ay matukaay la waaye nekkul lu ñu mën a jël tey loo xam dañuy dañ ko mën a defar tey tey. doon ma benn promesse daal di may dig daa la lii may wane nag moom gor la ndax lu mu diggee def ko mu ne ma yow dinaa la préparer le boo xam ne dinaa ko sa loxo ma jox ko say agent du cadre de comme ça bu ngeen di liggéey mu leen di jàppale ci liggéey bi ndaxte gis naa coono bi ngay daj ci wàll wàllu boobu manqué nga matériel mais dinaa la ci jàppale incha allah tey loolu la firndal tey mu jël ay lu mat ci ay ay ay burettes yu takku daal di jël ay bale yu takku jël ay peel yu takku ay ratu yu tak lu yo lepp do xam matériel ci walu ci walu ci wàllu nettoiement la ma yëkkati ko tek ko ci loxo cadre de vie c'est-à-dire teg ko ci ci ministère de l'urbanisme et du cadre de vie la ko tek ci lolu mu jëbël mako sama loxo min ma xam ne maa koy au niveau régional bon koku non dañ koy dañ koy toll ñu ñoo amal ñu ko di koy remercier vraiment ci ci ñëw bi nga def wàllu yàlla na yalla yàlla fay si ci jappalé nga jappalé administration ci walu suñu suñu wàllu suñu wàllu liggéey loolu dañ koy dañ koy gërëm te fu ñu ko toog lañ ko fa wax te lii nii lu ñuy yóbbu la ci kanamu autorité yi wax ko moom moom liggéeyam bu muy def ci wàllu donc euh, administration ci leen ci jappalé jàppale leen mu leen tout à l'heure ne leen na du ben du ben fii site rek lañu ñu on avait trois sites yo xamné ne war nañu waroon si la intervenir ben bi mo nekkoon donc euh, école Sidi Lamine Sow bu nekk Bongré foofu def nañ fi intervention donc nettoyé ko donc ak école bu ñuy wax Samba Diak bu Kaznak bu Bustaan bu Bustaan aussi def nañ fi intervention nettoyé ko bu mu set ak euh, école bu ñuy wax donc Abdou Khadir Kebe bu Darou Ridwaan bon donc yooyu yamuñu foofu tamit amna c'est sekk fay aussi ma agent yi ñoo ngi foofu noonu fay def nettoiement bon donc yemuñu rek ci fii ñu ngi ci bépp école boo xam ne dakk na ci région bi rek ñu ngi ñu ngi ci di di fàttali ne ko nag am nañu ay jafe-jafe ci wàllu inondation ndaxte keroog euh, bu ñu defee CRD à l'entrée des classes donc le le direct euh, le représentant de l'IA wax na ne il y a plus de 46 écoles inondées au niveau au niveau de la commune de Kaolack loolu bëri na takku na